maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar man itam. bokk ak Salif. xam naa ñu bokk benn baay te bokkuñu baay dañoo bokk ndey ak baay. kon yow maanaam Double Less mooy sa papa. mooy sama baay moom lañ Double Less moom la ñuy wax sama baay waaye Ngoné Gassama sama yaay teg Sadio Diatta ak Asli ñoo ñoo ma jur waaye man damaa jël lépp jël Ngoné Gassama def ko sama mag ndax moo ma jur waaye ñee ñooy sama yaay. tey loo mën a wax ci Salif Euh, en tant que sa rakk xanaa di leen sant ñoom ak di leen gërëm ndax nekk nañu rakk yu baax rakk yoo xamante ni fu ne lañ leen tudd ñu di leen tiitaroo it ndax tey mënoon nañ leen a dégg feneen loo xamante ni duñu neex ñuy am gàcce waaye gàcce ngaa laa ma suñu baay moo waral lii yëpp tey ndax nee nañ ñu baax rek ñooy bokk te loolu la yàlla dogal tey. kontaan ci yow. man tam maa ngi kontaan ci yéen bu baax waaw. Adja maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. tur bi Sadio. Sadio naka. Sakho. xanaa yow maire bi lañ la duppee. waaw mu ngi de. Uh-huh. yekk tànk rafet kaar nii uh-huh. <laughs> ëpp na. loo bokk ak Salif. ñoo bokk baay. a bokk baay. Uh-huh. tey bésam muy ngénte doomam tudde ko Omar yow ñu tudde la maire bi macha allah looy wax ak loo yëg ak loo ban seede nga mën jox ci saalif xanaa kontaan rek. sant yàlla nag ba tur bi nag dafa wuy borom ndax tur wuy na borom cër bi tam wuy na borom. ndax dañoo jël bi dugal sama ndéegu yaay muy sama rak muy ñimma te ñimma teewul maa fi teew maam jaaraa fi teew ndax maam jaaraay suñu taa waaye mooy suñu yaay tey lu mu def rek mu rafet waaye nag ñu ngi sant yàlla yàlla na yàlla mottali yéene yaay booy naam yaay ngoone gasam yow la euh, maa toppoon ci moom ñu dem sama wujju waaw moo nekkoon ñaareel ma nekkal ñetteel ñeenteel ma maa toppante ginnaawam ñii maa leen jur ci sama biir bii seen yaay def lu rafet jël cër bi dugal ko sama néeg ba mu ko fa dogalee ma am ci kontaante lool tey bu fekkoon ne am naa àdduna ak li ci biram dinaa ko wàcce fii waaye nag yàlla na nu yàlla jàppale te suturaal leen ni euh, Sa Sa Thiès jëlee tur wi tuddee ko magam jii di Balla Gaye def na lu rafet def na lu rafet tegu na ci yoon su jaar yoon ma xëccaat ko ne ko jaaral fii la yoon waaye yàlla def na jàddul yoon maa ngi ko ci sant maa ngi koy gërëm di ko ziyaarewaat bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan tur wi nag yàlla na niru borom yàlla na niru borom ndax Balla Gaye sama doom la ñu bari daan nañu jaawale ndax Balla Gaye maa ko juróole juruma ko laaj nañ ma ko ba tàyyi ci ci lu indi loolu dëkkuwaay bu rafet ak nekkin bu rafet man seen wujju yaay laa mënoon nañ maa xool bët waaye xoole wuñ ma ko bëtu yaay lañ ma xoole maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah mère Sadio daa mel ni ñi wax say doom la ak koo xam ne yéen la yàlla boole boroom kër ñu lay nuyu di la ziar di la ndokkale tey lii saalif def say mbokk yëpp ñëw ak say doom loo ci yëg yaay booy. waaw kontaan sedd. <laughs> waaw. yëg yaay booy nga kontaan. waaw man moom laa wax ni man damaa kontaan rek xol bu sedd. sama xol daal sedd wax dëgg yàlla dama cee kontaan bu baax a baax a baax waaw loolu la. diggante Salif ak Omar. ah diggante ak Salif ak Omar kan suukar ak lem la waaw. tey mu jël doom duppee ko ko. mooy lu ma neex na waaye ndaxte ñoo bokkandee ñoo bokk baay bu ko tuddee doom dafa war magom la kilifam la papam la léppom la. kon na bu ko tuddee doom dafa rafet mu tuddee ko doom waaw. sa doom yi toog loo may wax si ñoom. naa kontaan ci ñoom ndaxte ñoom ñu ngi ni ñoom yëpp teew nañ fi waaw waaw ak seen yaay ñoo dëkkoon dëkkan bu rafet waaw. kontaan ci yow yaay. waaw jërëjëf. Euh, kii nag mooy Moussa Fall bu Sathiès defe naa ne ku dégg euh, Sathiès di nga dégg Moussa Fall parce que loolu la yàlla dogal grand Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkale ci bisu tay bi. waaw Babacar maa ngi lay baax. di la di la di la nuyu di la sant di la gërëm bu baax ginnaaw nag bu loolu bu ñu santee yàlla bu baax di julli si yoon bi sallallahu salaam di sant suñu ñaari waajur di gërëm sëriñ Mbacke Mouhamed di ko ñaan yàlla suñu borom yokki leeram euh, di la fay nuyoo. Sa Thiès digganteeg moom loo ci mën a wax ak tey doom ji mu tudde Omar di magam. waaw mooy li ma ci wax léegi rek d'ailleurs euh, Sa Thiès li mu def man naan dañ naan dugalati na bal bi ci camp rek lañ mën a wax li tax loolu mooy. Euh, kenn ku ne xam na ni Salif Sakho ak Omar Sakho ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye lu baax lu baax la rek te lu lu xis bokk mbokk ga moom am na ba pare ndokk nag ba mbokk gi rafetee démb rafet tey ñu gën ko rafetalati parce que turandoo fu mu xis am loolu moom yaakaar naa ñu bari di wax kon wax gi day daal di jeex kenn ku ne xam na ni doom kuñ ko tuddee cofeel dara desatu fa loolu moom ñëpp xam nañu ko kon ginnaaw loolu daal ñu koy rafetlu daal di ci kont am kontaante bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax nag ci lii nga xam ni saalif def na ko def goo xam ni tàggu ci ndey tàggu ci baay tàggu ci kenn ci soit boobu la ko jël la ko defee jël doom tudde ko ku mbokk ndey ak baay waa loolu Babacar loolu loolu wax dëgg yàlla macha allah man dey sama xol sedd na guy bi ma demee ba nga xam ni yëg naa ni Omar la tudde doom ji yàlla xam na ni Salif waxtaanu ceeg man barke yonent yàlla Muhammad mu nekk lu neex nag. bu sedd xol nag kon Salif moom mën naa ne ay mbokkam sant nañ ko démb tey soog ñëw waaye nag moom sant moom mënul paase sant. Salif Omar Ibrahima ñoom yépp man seen nijaay laa waaw. tey bi mu def nii noo ko gisee. ah xanaa di ko rafetlu di ko rafetlu di leen di ñaanal. Eh, yàlla ngeen di rataxal seen diggante ndaxte ànd neexul ànd neexul loolu tax na nag e, du ma def dara lu dul ñaan sa suñu borom mu gën di rataxal seen diggante. kontaan ci yow ndaxte ki nga xam ne ki sa loxo la ñu juddoo dañ la fekk. ak seen yaay seen ndey bi leen bi leen jur sama mag la. amul benn problème ñu sañoon fi ñun borom fi tànk sax nga xam nga foo ñëwul di bare tànk xam ne sa doom fa nekk si jàmm rek leen ñaanal yàlla rek yàlla na leen yàlla lafal cat boole leen ba nu màggat ba dina leen di weer di leen weer kontaan nañ ci moom ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na yàlla eggale yéene kontaan nañ daal kontaan nañ kontaan nañ ci goro bi kontaan nañ ci yaay ji kontaan nañ ci ñoom ñëpp wax dëgg yàlla. Khadija félicitations. merci beaucoup. tey loo yëg. kontaan rek kontaan waaw vraiment. Salif wax na sàng ci yow ne na jàppale nga ko comprendre nga ko muñal nga ko du guddee sax nga laaj ko foo demoon mu ngeen am tey bébé mu tuddewaat ko Omar loolu loo ciy wax. waaw kontaan rek mu wax ci man benn lu baax rek mu ci moom fukk. parce que lu tax ma mën koo muñal muñal loolu yëpp moo ko wan xam nga pour turandoo bi nag moom dama cee kontaan wax dëgg yàlla ndax Omar ku baax la dafa nekk magu Salif ba pare delluwaat nekk papaam donc bu ko tuddee woy doom ji war na ko daal wax dëgg yàlla ndax ku baax la bëgg nañu macha allah nañu ko fay daal waaw. sa goro looy wax si moom Mère Sadio ii kooku sama yaay la <laughs> kooku moom du sama goro sa sama yaay la moom ma jur waa vraiment ndax jàppee na ma comme doomam di ma conseiller wax dëgg yàlla ku baax la amul benn problème wax dëgg yàlla moo tax moom moom sama yaay la moom. <laughs> kontaan ci yow waaye ba tey tamit parce que yaakaar naa kër gi yàgg buri lañ fay fekk ñun suñ fi ñëwee buri moom tamit loo ñu mën a si moom en tant que sa waaw kooku sama mag la <laughs> kooku sama mag la bañ ne sax ba ñu bari dañuy jaawale waaw wax dëgg yàlla moom tam dafa baax oyof nu mu mel noonu di reetaan ak kaf moom lay chaque jour moom daal amul ñaari kanam daan benn kanam bu mu am moom la am vraiment bu ma fi ñëwee ci kër gi ba tey macha allah mosuma gis ci moom lu ñaaw lu baax la may conseil lu muy def wax ma man tamit pareil donc sant yàlla rek sant yàlla wax dëgg yàlla sama mag la moom tamit waaw. merci beaucoup. au revoir. ban mbégte la. su ku ne xam ne leen bokk ndey ak baay mais dafa mel ni am na loo xam ne su amee am na lu ko waral. waaw waaw mbégte xam nga bokk ndey ak baay moom neex na lool waaye nga bëgg ki nga bokkal nga yëg ko yërëm ko am ci moom cofeel dafa jafe loolu moom sama diggante ak moom moo tax euh, lii am loolu kontaan la nag ak sant yàlla loolu dara mun ko weesu santeeko suñu borom rek. Euh, tey am na loo xam ne mënuñu la ko bañ a laaj ndax ku ne gis na ne dem nga siyaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañ ci vidéo yoo xam ne sax gis nañ la ci benn centre am yu ñu lay takkal yooyu loolu loo ci mën a leeral sénégalais yi nii parce que bëri nañu moo koy laaj kër bi ma dugalee vidéo bi waaw ah, foofu dafa am ay yaa bu yàlla dogalee ñu dem fa ñu nekk ñu njëkk a dugg Màkka loolu moo waral tey gars yi décoré ñu loolu ndax bokk na ci li nga xam ne ñëw rek moo andi euh, bañ téyee bañ téyee umra bi yàgg na covid bi yàgg na pendant ndax at kenn ñëwul kenn duggul bu yàlla dugalee ñëw nag vraiment ñu sant ak suñu borom gars yi décoré ñu si ñu am ci mbégte ñoom seen wàllu bopp waaw. ngeen jóge Makkatal Mukarrama ñu am ci information yu ñu gis ne mu Lo dafa sol dàllam dem kër Aziz siyaar si leen fekk la fa loolu tam loo siy wax sénégalais yi. non en fait euh, tante Aziz moo gaañu woon yàlla dogal. Euh, mu ñëw fa doon ko jàlle macha allah di ci wax kontaan ci rek nag kontaan ci di ko rafetlu. moom Tiwaawan la amee wala Dakar. non Tiwaawan waaw ñaa ci yaajoo yàlla na ko yàlla yëpp taxaar ko jëme ma laaj la ko laajoon naa la ko kera amoon nga ci tontu waaye boobu par téléphone la woon mais bii yaa ngi ni taxaw ñiy wax ne la ziare yonent bi sallallahu sa wasallam gis ko kurus yaak léegi na mu gën a kii daal macha allah gars yi naan Balla ndax day bàyyi. ñuy wax que ni Omar euh, ba maanaam bàyyi bëri bi ndax si yaari na yont beeg yooyu loolu ñooñu tey loo leen di gën a wax. waaw ku ñaan yàlla euh, ñëpp ngi ñaan yàlla ziar yonent bi sallallahu alayhi te yàlla na ko ñëpp ziar ndax euh, jullit bu nekk bëgg loolu te vraiment aussi tamit loolu yàlla la lu ñuy wax aussi tamit jaamu yàlla ak liggéey ñoo ànd jaamu yàlla ak liggéey mooy yoon moom la jullit war a def moom la doomu adama war a def ça n'a rien voir ak métier métier métier la. mais jàmm yàlla ak liggéey moom moo war donc bu yàlla déwén ñu am ay mag am ay yoo nga xamante ne ay kilifa lañu ñuy teg ci yoon bi aussi dañ koy nangu donc di ci sant Abdelaziz Alain Ndiaye suma mag suma xarit yóbbu ma umra ñu ziar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mottali li nga xamante ne mooy wàllu jullit loolu moo ñu fa yóbboon te sant nañ ci alhamdulilah te gërëm nañ ko ci. am loo xam dinaa la ko laaj benn xale boo xam ne ci làmb ji la ne di seen rak rëg-rëg ñu gis ko fan yi mu nekkoon Singapour di compétir ci wàllu MMA ba pare mu gañe ko tey yow xale bu mel noonu ngay seen mag ci làmb loo koy soññe ak loo koy wax waaw alhamdulilah ba yàlla yóbbee ko mu doon xeexal Sénégal euh, yàlla dogal moom ndam ñu ngi koy féliciter di ko encourager di ko ñaar yàlla lépp li nga xamante ne des na ci carrière am ci MMA bi yàlla ko ci yàlla suñu borom maa ndam Balla ren est-ce que gëm nga ne bëri dina am ren ci saison ci nu ne nii. waaw ñu ngi ñaan yàlla moom. nii muy doxee te kaaral ji daa bari de Balla kenn seen wax ngeen def ngeen conférence de presse dem ngeen TFM fu ne wax ngeen mais dara amagul. waaw waaw peut-être du lépp lañuy wax wala nangam am nañ ci yaakaar ne incha allah kon ñu ko gars yi bëggee dina demee noonu mooy huit kilos lañ ko bëgg te xam naa ne dina demee noonu incha allah am nañ ci yaakaar. nga xamul lu may def man damay damay damay tekki léegi damay jox micro bi léegi nga ñaanal parce que yàlla waaw waaw tàllal leen mu ñaanal leen barki ne bu la jëlee ba soppeem ba Seydina Mouhamed wala ngay dee daal tukkee doom ma delloo waaw <laughs>